ñu ko doon xaar ay weer ci mujj gi ay fan fi mu nekk nii ay waxtu rek ñoo des ci combat bi nga xam ne war na dox ci diggante Zarko ak kii di bay Mandione fii ci Grand Yoff supporters yi dëkkandoo yi mbokk yi ak sax autorités yi ñëpp ñu ngi taxaw ci seen ginnaaw mbër mii di Zarko ngir puus ko ci ndam li séq nañu waxtaan ak équipe bu Sene Info International. waaw fu ñuy toll ci préparation bi mooy niñ ko doon waajee rek. di ñaan yàlla sunu borom bi may ñu ndam si combat bi ndam bu sedd guy ñoo ngi koy waaje si léppoo lépp si ay supporters mobilisation autorité ñëpp ñoo ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax a baax waaw sunu adversaire moom xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax dafa doon si nga xam ne si adversaire bu ñu gën a respecté si làmb ji si la gën a bokk ndax yàlla dafa def ni mën naa ni sunu buntu làmb dafa bokkali ci combat bii moo tax ñu ngi ciy gën a góorgóorlu bu baax a baax di ñaan sunu yàlla sunu borom mu may ñu ndam bu sedd guy ci kaw Baye Mandione ndam bu gaaw sa sedd guy. waaw affaire violence moom ñun moom waa Grand ñoom daanaka ñoom duñ ci yëngatu sax ndax ñun xamuñu affaire violence ñun chaque jour fair play bi la ñuy indaale c'est que tax yàqkat ndax mënul ñàkk wante ñun woowuñu benn yàqkat. ñun dañuy wootee mbooleem ki nga xam ne jàmm moo la tax a jóg nga ñëw ñu dem stade yàlla may ñu ndam bu sedd guy ñu ñibbisee ak jàmm def ko ci fair play di wax mbooleem ko safaan indi si affaire combat bu mën nga toog sa kër ñun ñu dem jële victoire bi indil ko ci jàmm feete ko ci jàmm. waa xam nga ne affaire combat moom dafa dafa laaj stratégie ndax mën nga indi bunt bi keneen ñëw indi beneen buntu sa Zarko xëy na moom yàggul si bëri noonu wante du ci ngaaka. am na ci espérience bi nga xam ni mbër stratégie bu mu mën a indi xam na nu mu koy liwtoog moom ba am porte exploité ko waaw côté boobu moom amoon nañ ci confiance ci moom bu baax ndax xam nañu moom mooy kan yàgg nañ ko suivi mboppat ñun li ko gis ci mbapat gise guñ ko ko ci arène wax dëgg yàlla ndax yàgg nañu nekk ak moom façon mbapat bu ne yàgg nañ ko ànd ak moom li ñu bëggoon mooy kon ni mu ñu doon defar ci mboppat mu commencé ñu koo defal ci arène bi boobu ainsi dañ ci am confiance gis nañu état boobu ci moom gis nañu ni kii dekkil na lim doon wane si mbapat dina ko wane si combat bi incha allah. kon suñu mag euh, suñu xarit suñu lépp euh, ñu koy wax Zarko euh, moom moo xewle suba dimanche. waaw di comme boobu sarko bu xewlee kon ñun ñi nga xam ne tamit dañoo bokk si moom dañuy bàyyi suñu activité yëpp ñëw fekk si ko si li mu si si li mu nekk daal. waaw di rafetlu tamit tamit li ngeen ñëw fii comme li ñuy wax Matar ak Baye Guilé ñëw seet si ñu. Euh, ñun salon Marie Coiffure loolu dañ ciy rafetlu kon ñun tamit pare nañ tamit pour jàppale leen si lépp lu nga xam ni tey dangeen si ñëw seet suñu ko pour ñu ànd ak Zarko pare nañ si pour ànd yow jàppale leen. waaw ni ñu koy waxee rek ah, man dafa am benn message boo xam il foo ma lancer ko fii Grand F ndax buñ nee Grand F dañuy wax violence te violence bi ñuy wax ñun ñu dëkk Grand F xam Grand F ñun gisuñu ko fi mais dañuy suba combat dañuy ñaan yàlla rek. bépp bépp bépp koo xam ne yaa ngi pare pour ñëw stade su fekkee yàq la tax a jóg jarul ngay ñëw képp ka nga xam ne nag fair play moo la tax a jóg ñëw nga jàpp si te xam ni combat gii nii combat ga nga xam ni la combat gu ñu ñor la waaw combat gu ñu ñor la te combat gii dafa doon ndam ga nga xam ne ndam lu sedd guy ndam lu sedd guy la si waa Grand Yoff comme dañuy wax waa Grand Yoff bépp population buy dem stade rek. na nga ñëwee ak non violence ñu ànd fair play. pour monsieur le mais Pape ma Diop d' abord seet si ko comme ni ma ko waxee ci biir rek euh, Grand Yoff képp koo xam ne da nga dem di ko représenté rek defe naa ne da nga yore drapeau Grand Yoff te defe naa ni kenn bëggul sa drapeau réew daanu tey le premier magistrat de la commune yónni woon ñu ñëw. encouragé ko ñaanal ko waaye taxaw ci wetam pour wan ko ni ko Grand Yoff yëpp kët ñi ngi ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla ci làmb ji mu jëm yàlla may ko ci ndam parce que aujourd'hui bu buñ ko gisee ci làmb li nit ñi di njëkk xalaat mooy Grand Yoff mm-hmm. te ñun nag amuñu lu dul Grand Yoff donc doomu Grand Yoff ak ci lu mu mën a yëngu rek dañ ko ci soutenir di profiter di lancé appel rek à toute la population de Grand Yoff ñi mën a ñaan nañu ñaan ñi mën a def leneen nañ ma def mais ñi ci mën a jàpp tam kenn ku ci ne nga ñëw ci la nga mën nga jàppale ko parce que Grand Yoff lay lay lay représenté et je pense que cet appel concerne tous tous les fils de Grand Yoff fu ñu mën a bokk ak lu ñu mën a def xam ni kat moom Zarko lañ bu demee tey Grand F lay demal te kenn ku si ne si ñun nag def naa ne ndamu Grand F mooy li nga xam ne moo la ñor loolu daal mooy message bi nga xam ne monsieur le maire yónni woon nañ ko ñu ñëw euh, wax ko ko waaye ñaanal ko di ko réaffirmer suñu soutien mais suñu engagement derrière lui di ñaan yàlla mu may ko ndam suba ci kaw Baye Mandione mais may ko yeneen ndam nag ba couronne bi ñëw fii ci Grand F te am nañ ci yaakaar waaw wax dëgg yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sant suñu ñaari waajur di sant l'ensemble zone 7B de Grand di kontaan bu baax a baax ci ci euh, le maire bu mu fi yónnee di kontaan bu baax a baax ci Basirou ak Paul ak ñi mu àndal ñëpp euh, di kontaan aussi ci taxawaay bi nga xamante ni fans club bi mu ngi ko taxawee di ci liggéey lu am solo ba mun naa ni moom actuellement moom pare nañ wax dëgg yàlla parce que ñu ci dernier virage amatul leneen loo xamante ni dañ koy def surtout tey. journée relax la donc euh, pare nañu ko di xaar suba incha allah yàlla yóbbu ñu stade ba defal ñu ndam ñu indi indiwaat ko fii feete ko bu neexee yàlla. non mais xam nga damay damay bañ wax xool léegi ñoom ñu ñu rectifié wu donc boo bëgg denc ba ci ba suba parce que suba ñëw na ba pare. donc euh, li ñu doon wax yëpp wax nañu ko donc li ñuy wax nii ñëpp répétition lay doon fi nekk nii gars yi confirmation la ñuy xaar muy suba ñaan yàlla yeewu suba ak jàmm rek comme ni ñu yeewoo tey. ah comme sama adversaire aussi tamit yeewu ak jàmm ñu dem ma daan ko jël bu set wecc incha allah indi ko fii ñu féete ko te noonu lay demee sax bu neexee yàlla. non man moom wax dëgg yàlla man samay supporters moom sama xel dal na ci ñoom quoi waa Grand Yoff xalaatuma sama xel xalaatul ni dinañ dem stade di indi ay ay désordre parce que yàgg nañ ci ay bis dem nañ façon bis bu nekk xam nañ victoire xam nañ défaite xam euh, yàlla dem nañu mosuñoo match ñun te ñaanuñu ko yàlla. donc du làmb baay Baye Mandione mooy tax ñu dem stade di yàq suñu image wala dara te incha allah rabbi gëw ma ni sax ni loolu dina am parce que eh, bu neexee yàlla ndam lañ leen di indil donc xalaatuma ni dinañ fa def violence te aussi di leen lancer benn message rek di wax ni euh, ñoom ñëpp dañ leen di woo ci non violence ñu dem stade sañse lu rafet toog ma leen di bégal ñoom ñu géral ma ci kaw man ma géral la ci suuf defal leen ndam lu sedd guy après ñu ñëw feete ko fii. incha allah si ñu ngi leen di jaajëfal. xanaa di la lancer ay benn message rek mooy si nga xam ni mooy si nga xam ni waa autorité yëpp ñoo ngi ciy lancé message di woo autorité yëpp di woo waa zone 7 ñëpp ñoo ngi leen di woo si combat bi di woo autorité yëpp. ñu ngi bu ñuy njëkkee nag mooy ñoo ngi gëm ci sunu papa xalifa sàll mi nga xam ne moom moo nekk Grand ñun ñoo ngi koy woo ci combat bi teg ci Pape Madiop Diop maire Grand Yoff di gërëm Mora bu baax a baax a baax di gërëm Badara kebe président écurie Garaaf mbooloo jàpp na si combat bu baax Adama fay ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Nourou Ñaa Issa Sey Abdou Diallo chef de quartier di gërëm waa Garaaf ñoo ngi gërëm Lamine fay surtout lamin fay mi nga xam ni moom moo waral lépp bu ñu amee problème fu ñu taxee fu ñu ñëwee moom dina ci jàpp ñëw accueillir ñu dalal ñu di gërëm i Dramé ñoom ñëpp ñoo leen di gërëm waa autorité yëpp Ndeye bu ñoo ngi koy gërëm ak Boubacar Camara ñoo ngi koy gërëm Mora Cissé aadama Faye kon ni ma ko waxee mboolem ki nga xam ne autorité yaa ngi grand rek ñoo ngi lay tàllal sa loxo di la woo suba incha allah nga ñëw taxaw ñu mobiliser wu ñu kon niñ doon def yàlla may ñu ndam ñu dem jëlee ndam bi indiwaat ko di la wane Grand Yoff benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Zarko ci drapeau Grand Yoff lay représenté stade représenté wul drapeau Massamba représenté wul drapeau ma ma Demba drapeau Graaf lay représenté moo tax mboolem autorité bu yàlla def nga nekk biir Graaf rek ñoo ngi la ciy woo pour nga ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax en di gërëm fàllu Couture nag Fallou Couture sama frère di gërëm Lamine Xaama sonn na ci combat bi gis nañu stratégie bu mu ciy def magu Zarko wala ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm suñu waa koñ nag di leen baalu àq tamit ci dérangement bi ndax chaque jour ñoo ngi leen di déranger ñoom ñëpp ñoo ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax di leen wax ni nag ñun ñoo aye ñun seeni doom lu metti yàggul dañuy ñaan yàlla mu may ñu ndam ñu feetawaat ko Grand Yoff nekkaat si jàmm